dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyanto yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ci réewum Haïti foofe nag ka nga xam ne moo nekkoon njiitu réew ma di Jovenel Moïse ak jabaram dañu leen rey dañu leen assassiné ci seen maison privée la ñu leen fekk ab commando moo doxalee mel fekk leen fa sox leen ay balu fetal ba ñu sedd guy yéenekaay gi nee na jamono ji nag premier ministre ba di Claude Joseph daan li ne mooy état d'urgence police yi ñooy militaires yi maîtriser nañ li nga xam ne mooy situation bi conseil de amal ab réunion yéene kaay gi di Vox Populi ak L'As ak Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Cheikh Omar Anne mi nga xam ne moom la ñu dénk njàng mu kaw mi moom nag daan nay rafetlu baax a baax étudiants yi nga xam ne teg nañu leen ay daana ci fi nga xam ne mooy université Cheikh Anta bu Ndakaaru yéene kaay gi di Libération moom mi nga xam ne moom la ñu dénk njàng mu kaw mi nee na nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum violence amuñu place ci sunu université yi commission discipline yi nga xam ne teg na leen ko loolee nag kontaan naa ci te nag bi maanaam seen rôle quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Ndiaga jamono ji ma ngi ci guddi gu bët séddikula ndax gendarmerie bu Faidherbe bu moo ko teg loxo def ko garde à vue ginnaaw nag ab plainte boo xam ne Alaaji Ndiaye mi nga xam ne moo njiitul 2STV defoon na ko Ndiaga Ndour ci lu jëm ci wàllum piratage ci ay fréquence ak lu soxal wàllum sàcc fréquence yéen kaay gi di alerte nee na Ndiaga jamono ji ma ngi cab garde à vue waaye nag soo muy tuwulay musiba ma ba kumba gu rëy dina ko dala yéen kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu Ndiaga tey ji lay janoo ak procureur bi maanaam tey la ñu koy defeere yéen kaay gi di direct news xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas Sénégal musiba ma bu kumba gu rëy ba muy tuulee dana dal askan wi ci lu jëm ci wàllum wér yaram gi Sénégal jamono ji ci ab bombu sanitaire bu doy waar doy waar si la Sénégal toog ndax relâchement bi nga xam ne moom la ñu gis ci sunu kilifa yi ak coronavirus bi nga xam ne maanaam mooy yokk ci réew meek variant delta bi nga xam ne feeñ na ci réew meek vaccin yi nga xam ne manqué na ci réew mi yéen a kaay gi ne loolee soo ko boolee ab bombu sanitaire la boo xam ne si la te Sénégal lan moo tax booba ba léegi munta jënd sax lu toll ci benn million millions doses yu vaccin loolee ab laaj la boo xam ne journal bi moo ko xëy di ko laaj xaalis bi nga xam ne mooy xaalisu Covid bi xaalis boobee ana fan la dugg samp laaj professeur Moussa Seydi mi nga xam ne ab professionnel la def ay preuve am ci li nga xam ne mooy jàngoro Ebola ji feeñoon ci réew mi jamono ji nag bu professeur Seydi waxee ñi nga xam ne ñooy jege ñaale Abdoulaye Diouf Sarr ñooy jóg di ko songo yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu tribunalum Ndakaaru niki démb bu na benn waay bu tudd la ñu doon attee te soo muy tuulee danañu ko tëj lu toll ci ndax moom da doon yëngatu ci lu jëm ci wàllum njaayum drogue ni ki démb nag li mu wax àttekat yi nee na leen damaa soxla woon un million trois cent loolee moo taxoon ma yëngatu ci wàllum trafic drogue ndax dama bëggoon a tukki dem diwaanu Pologne yéen kay gi de Les Échos ak L'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu gox bii di Kër Masar maanaam faux billets ya ma nga fay jàba jonge ndax lu toll ci deux cent soixante-quatorze milliards ci ay faux billets la ñu teg loxo fi nga xam ne mooy Kër Masar yéen gi de L'As ñu xëy fekk fa Ahmed Khalifa Niass mu nga xam ne ñooy journaliste yi ak banque yi nee na lu jëm ci wàllum góor jigéen gi gars yi ñoo ngi wax rek ci journaliste ak banque yi foofee la ëppee yéen kaay gi de la turbina xëy duñu xibaar naan ñu Bougane Gueye Dany ma ngi woon ca diiwaanu Thiès na effacé ki nga xam ne mooy Macky Sall Macky nag ba demee ca Thiès wax naan poñse bi neex na waaye Bougane Gueye Dany nee liggéey du reeree poñse yéen kaay gi di réew mi ko di jeexee ci élection locale yi Assane Samb jël xalimam xam ne mooy caution bi ndax nag am na yoo xam ne gars yi ñoo koy def naan bi vingt millions te loole nag bu ñu ko defee maanaam élection yi dañu ko bëgg a jagleel ñi nga xam ne ñoo am xaalis te nag mbir mi wër te demee noone te bu boobaa sax dañuy exclure ñu baree baree bare parti politique yi bëgg a ngar daajjoo li nga xam ne mooy système électoral bi loolee baaxul ci sunu démocratie yéen kaay gi di Source A xëy ci code électoral bi ba léegi nii Karim Wade ak Khalifa Sall mënuñoo bokk ca élection ndax article L31 ak L32 léegi ma ngi ci yéen kaay gi nee na c'est la mort de Rimka ak Khalifa Sall journal bi di Sud Quotidien Karim Wade ak Khalifa Sall ci loxol Macky Sall la nekk yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na en tout cas bu yées bi nañu ci def ndànk ndax ndëgg sërëx yi bëri na maanaam piège yi yéen gi di Esat xëy duñu xibaar naan ñu Angleterre niki démb éliminé na ñi nga xam ne ñooy waa Danemark fekk Italie ca final ba yéen kaay gi di sunu lamb nee na ñi nga xam ne ñooy mbokki tafatina ak supporteram bay boo ñu def ndànk ci ki nga xam ne mooy Boy Niang 2 ndax Boy Niang jamono ji daan li nga xam ne mooy ay boxeur moom Boy Niang ci journal bi nee na bu ñu jàkkaarloo dinaa ko jàngal xeex